Euh, sunu sunu cant yi mhm. ci liggéey bi nga ñu doon liggéeyloo mhm, mhm, muy yabal gi ma yabaloon ma demoon aji mag waaye aj ga ci ndigal laa ko defee nga boole maag président ne dalaa joxoon ne nga yabalal ko kenn mu ànd ak moom ci aj googu aj googu it bañ ca demee ñu ngi lay xamal leen lañ ca war a def lépp maag bokk yama fa taseel ay kilifa say bokk yabal leen sëñ Mbay Si Mansour sëñ Cene Ba sëñ Mahi Ñas ñooñu ñëpp seen délégation ñëw nañ waaw ña nga ca waaye ñoom ñëpp ñu ëmbal aw yiw ak fonkeel ak cofeel ñu ànd it wu rafet ànd ak mbokk ba yëfee jeex ba démb liñ mu jëm Madina ànd ak président jógee Munan dem siyaare Yonent bi sallallahu waaye ma seereel la ne muy Kaaba ga muy barab yu tedd yëpp ba ci Madina giñ mujje fu ma ca dem fu ne lenn képp laa la fay ñaanal te si Abdul sa waajur wu tedd wa nga xam ne da ngeen bari lool lu ngeen nuroo <laughs> ci pas-pas ba ak dëggu ga ak tabe ga ak yëpp damaa gis sëriñ Cheikh Abdoul sëriñ Cheikh Oumy sëriñ Abdoul Khadir ba ko yóbbu mag mm. mu di ko tàggu si belel gii mm. te ba mu del see fekkaatu ko fi ca kori googa mm. da ko ne Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo demee ca Kaaba ga ak ca barabu Yonent bi mm-hmm. ñaan naa la boo fa ñaanal dara lu lii ma lay bëgg a wax mu ne ko ah, mu ne ko boo demee ñaanal ma sëñ Tuubaa nangul ma sama taalibe bi <laughs> te amaatul ñaari weer <laughs> kon ko kon kon nag loolu yi la leen rek laa la fa liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa gërëm la ci ngërëm loo xam ne kawe na sa njort ba nga ba mu àgg foo ko foo ko wutoon nangu la sa liggéey ak sa taalibe bi ndegam doomi ko na ko ñaanal ko ne sëñ Tuubaa nangu la sa taalibe bi te loolu lépp a ngi ci lépp ngi ci soxla ma leneen waaw ah, ah, ah, nekk lépp soxla ma ci dara loolu toogee foofu maag bokk yooyu yëpp président mm. genn kàddu la yëkkati xamal ko ne ko mm-hmm. su ma soñoon sëñ daar yi ñu tëj leen di ay njuumte la leen la ay tuuma la maa ngi lay ñaan ci barabu tedd bii nu ne kilifa yi diini yëpp toog man sëñ Muntaxa moom yebal waaye maa ngi lay ñaan nag hmm. nga dimbali leenu sëñ daara yooyu nga yeewi leen fexe bañ gracier yi leen ci tabaski gi ñaan naa la ko hmm. ci saase la jël téléphone woo ministère de euh, justice hmm. ne nañ xool nuñ ko gën a mën a réglé bañ daal dem ci àll sa la ne ma ñëw ñëpp yeewi nañ leen ministre bi dana la jox liste bi ñu daal li may jox liste fa saasa laa daal di woo Moussa mi. ne ko neel sëñ moom laa doon liggéeyal te liggéey bi sotti na. ndax ma ni mu fonkee alxuraan waa daara yeewee nañ leen na ko yëg. Moussa ne tontu na ma ba ma dégtal ko ne ko si beneen gërëm na la ci. rek te yaa ngi nii liggéey baa ngi doon ma jëbbal ko sëñ daara yi daal ndam luñ ci amee wax ndax yaa taxoon ma doon ko. tubaarkalla tubaarkalla la liggéey sëñ la. loolu la liggéey sëñ Tuubaa la waaw moom moom nga sémbu te te te drag drag. alhamdulilah def fi ne rek moom mii waxoon naa ko ne ko da nga liggéeyal sëñ lii nag fa tabaarakallaahu tàmbali bu amul yemuwaay lay doon waaye léegi léegi bu yemoon ci yéen ñii képp mu doy yéen ñii nga xam ne ànd ak moom ci ci buntu boobu. tubaarkal euh, bu bu fokkante yemoon na ci yéen képp itam. Euh, kon mu doy ndax naa dana jàll. tubaarkal tubaarkal la ma bëggoon ci moom liggéey Sëñ Tuubaa. tubaarkal dana dem dana jàll. tubaarkal ah, tubaarkal te it damay ñaan ba yàlla bàyyi ko fi nag. ndeysaan ndeysaan baaxul Sëñ Tuubaa ak. amiin amiin dara jàmm yàlla bàyyi ko fi. amiin euh, yokk fan bu mu gën a gudd lool. mu tëbb ko wér gu ànd ak kattan. amiin gu mën a àggale yéenam ci sëñ waaw loolu waaye waaye waaye waaye waaye waaye junjoon naa ko. naa ko da nga liggéey sëñ Tuubaa kon liggéey bi fii ci ci tam yéen ñi la tàmbalee ndax lu yéeme la.